asalaamaaleykum mbokk yi tàmm di topp seen site mourides point si leen présenter seen émission Firi Guent bi nga xam ne ñu ngi daan siq ak Serigne Moulay Sow xat-xat yi jamono rek moo taxoon waaye émission bi yéen ñu ciy soññ di ñu ci yéen ñu ciy soññ saa su ne moo tax tey ñu doxantuwaat ba ñëwaat fii ci moom fa yéene siq ak moom laaj ak tontu ci li nga xam ne que ni gis nañ yëbbante yi ñu ci yëbbante muy la jëm ci wàllum jinne kon sëñ Moulay ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk yi lay seetaan. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل سر الفم في الشفتين واللسان وجعل سر اليدين في الأصابع والبنان والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صاحب البرهان وعلى آله وأصحابه الذين أنصروه في السر والإعلان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانصر علي رحمتك وذكرني بما نسيت يا ذا الجلال والإكرام اللهم نور بالكتاب بصري واشرح به صدري واستعمل به بدني وأطلق به لساني وقوي به عزمي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين سدد لساني نور جناني صفي أماني وزد برائي إخوة المشاهدون والمشاهدات أحييكم بتحية إسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته suñ بانجلي baa نيو di la ziyaara te di la jëfal di jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ci réew mi ak ca bitim réew di leen ñaanal yàlla mu defal leen jàmm ak wér bi leen ay bunti xewal yu ànd ak barke te boole ñu ko ak ñoom ñuy ñaanal yàlla sëriñ Mountakha Bachir yàlla yàggal ko fi te wéral ko noonu lañ koy ñaanalee suñu sëriñ Cheikh na Cheikh Ibrahima saw yàlla taxaw ko sàmm ko aar ko yéer ko te suturaal ko te dolli ko wér. yàlla na yàlla dool leen ak kattan ba lañ bëgg liggéey liggéeyal lislaam ba ko liggéey ci yoonu Sëriñ Tuubaa yi ñu def ci lu kawe njort ñun ñi na yàlla boole ñu ak ñoom ñun ñi di ay ñëpp ci liggéey boobu bañ bokk làq ngërëmul yàlla ak yonentam waaye ñu làq ngërëmul Sëriñ Tuubaa ñu ñaan yàlla kàddu yi nga xam ne danañu ko génne mu def ko muy kàddu yoo xam ne day génne ci gémmiñ gu jubloo jariñ ñamuy waxal dugg ci ay nopp yoo xam ne dañuy diglu te bëgg dégg lu leen di jariñ wàcc ci ay xol yoo xam ne dañuy tataan di tataan gën gaa selli ndox waaye royaat ci cër yooyu dañuy topp di ko teg ci ndigal di bàyyi te di ko teg ci tere ñu di ko ñaan mu defal ñu albayaanu wat tibiyaan yal nañu musal ci ay bi làmmiñ rëccile fakkasalu ak njumte ak xel mu tëju yal nañu leeralal suñu xel ak suñu xol leeral suñu làmmiñ waaye mu boyal suñu xel ak suñu xol boyal suñu làmmiñ te tuddloo ko yalla nañu dimbali ba lepp luñu bëgg a ñu leeral ko ci gën ga léré anam gën ga mati anam té lepp di njariñ jafa mu jëm hmm. jëf euh, ci nuyoo bu am solo bobu señ mu ñi ngi doon jot ay message yu nga xam dañu doon soñ ci émission bi waaye dañ ko bolé ak ay yëbbante bëgguñ ku leen dikkalaat ci nga xam ko moy jinné jinne euh, fofu nak la tambalé moy nga dikkal ñu ci lan moy jinne ak nan lay feño doomu adama ak yan galankor lako mëna tek jërëjëf sëriñ ci laaj bu am solo bi waa jinne mbindeef la mu yàlla bind njëkk ko bind ci doomu aadama moom la njëkk bind xam nga boo delloo ci alxuraan di nga gis fi muy waxee ne iblis ci jinne yi la bokk ne illa kaanam kaana minal jinni fa fasaq waaye dafa jëf-jëfi caay-caay joo xam ne ci la yàlla jaaree alak ko te jëfi caay-caay jam ma nga ko jëfee ci ba ko yàlla bindee mu nekkoon kilifa ak mbooleem malaayika yi nekkoon ci kaw suuf yoo xam ne dañ lay wax ne la fépp foo xam ne doomu aadama teg na fa tànkam taxaw fa ab diir te jan matu ko fa rek iblis julli na fa junni rakka ba yàlla bindee aadama te fekk lu jiitu loolu iblis liiroon na ne yàlla dina bind jëmm joo xam ne dina digal malaayika yëpp ñu sujjóot ci dina am malaayika mu bañ dina ci am jëmm ju bañ iblis ne loolu kan moo ko ñeme di xaar bis boobu bu bis ba agsee mu ne tey nag maa ngi xool kan mooy sañ yàlla digal ko mu bañ mboolem lu yàlla bind di sujjóotal aadama ba mu agsi ci moom ñu ne ko yow nag danga dul sujjóot Niko nit ñi niko jinne yi songo noy niko do doo do doo mu daal di rëy japp ko mu ne déedéet sujjootul ndax mo gën ki muy sujjootal mom jappo na ne ku nekk sañ bañ bam mu mom gisul won bopam ci ne dina def lu mel nonu le euh, jinne señ jëm lay doon jo xamne ne mom moom la bi na ci doomu aadama comme ni ko waxee nii ko waya la tax doomu adama di tuddé tuddee jinne mooy nëbbutu gum mën a nëbbutu ba nekk ci même barab bi nga nekk yow doomu aadama te doo ko mën a gis da gis ci nit ñi sax koo xam ne dafa bëri ay dugg-dugg dañ koy tuddee jinne gis nga jëmm jooju ñuy tuddee booy jinne hmm. te dara waralu ko ludul ñu koy jàppee yóbbu ci kaso ak doxi doon yi muy def yëpp nga tëj ci kaso kaso bu jafee rëcc mu rëcc ñu mujjee tudde booy jinne ndax jëf yi muy jëf te kenn du xam fu mu jaar ba jëf ko hmm. maanaam doomu aadama ci cosaan lépp loo xamante ne nii lu mën a jommale la lu la mën a jaaxal la ba jéggi lu xel nangu rek da koy tuddee jinne waaye jinne moom ci cosaan lii ma la wax nii la. Mhm. am mbindeef la mu yàlla bind moo xam ne moom la njëkk a bind. defal ko kattan nag gum defalul doomu aadama waaye nag doomu aadamaa ko ëpp kattan. Hmm. kattan gi ko yàlla defal te defal ko doomu aadama bokk na ci mu mën a nëbbatu ba kenn doomu aadama du ko du ko gis ak bët te moom muy gis doomu aadama ci anam gu doomu aadama mën a nekkee. li yàlla di wax ne innahu yaraakum huwa wa qabiluhu min xaytu laa tarawnahum uh-huh. iblis ak giiram gi mu bokk mooy jinne yi ñoom mën nañ leen a gis te yéen du ngeen leen mën a gis mm-hmm. waxul ne du ngeen leen gis ba faw waaye buñ desee ci xaala bi nga xam ne moom la leen yàlla ne mooy melokaan wi leen yàlla bindee te soppeekuwuñ mm-hmm. doomu aadama du leen gis ak bët ndox seen xaala xaalatu taasiir la maanaam kon ñoom daa am jamono boo xam ne que ni dañuy mel na waaw soppeeku ko moom ku ne xam ne ne jinne da koy def waaye du jinne yëpp ko man jinne yi ko man mooy ñi nga xam ne ci ñoom dañoo am xam-xam xam tax ñu mën koo def xam nga ci nit ñi am na ñuy def noonu mes da ko dégg nga xam ne dañuy toog jamono boo xam ne bu leen neexee ñu def noo xam ne nit leen gis mën na nekk gàllaaj gu ñuy takk mën na nekk jër gu ñuy yu mel noonu la mm-hmm. bu dee ci séeréer yi da gis ñuy tooñante di wax ni ren bu ñuy takk ak nangam waaye xam-xam mooy tax ñu def ko ñi koy soppeeku ci ñoom ñoom jinne yi xam-xam ña ca am xam-xam lay doon xam-xam moo leen koy tax a def waaye du da leen neex rek ñu soppeeku. Hmm. déedéet léegi nag bu ñu génnee ci na leen yàlla bindee woon mooy madda ba leen yàlla bindee woon matière boobu bu ñu ci génnee bu ñu nekkee beneen matière nit mën na leen a gis xam nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, wax na ne jinne feeñu na ko muy julli mu bëgg koo yàqal julleem mu jàpp ko xoj ko jinne joo xam ne seytaane la mu jàpp ko xoj ko ba lu yóot yi di sotteeku te yóot yi dafa sedd guyu xam nga bu fekkoon ne ci melokaan wa ko yàlla bindee woon rek ca la desoon du mën a génne lu sedd ndax ci sawara lañ ko bindee suñ la bindee ci sawara looy génn ci yow lu nekk lu tàng la war a doon ci yoon kon génn gi génn ci na ko yàlla bindee woon moo ko yóbbu ci buy mu mën a génne ay yuut yu sedd guyu hmm. Hmm. Euh, ci buy ñi dugg ci doomu aadama ba yan bunt la ko mën a jaar buy dugg dugg doomu aadama si yan bunt la ko mën a jaar waaw bu dee day dugg ci doomu aadama mën na ko jaare ci bunt yu bari waaye bunt yëpp ci soppeeku lay jaaree ba noppi. waaw hmm. mu soppeeku ba noppi door koo mën a dugg. Hmm. day soppaliku ngelaw dugg ko bu duggee ba noppi nag door a soppalikuwaat jëmm jëm nekkoon yor jëmmi doomu aadama nag. Hmm. bu dee ci jigéen ñi li ëpp ci bunt yi muy jaare mooy ci bopp bi wala ci kanamam maanaam sëyukaayam. fa lay gën a jaare mën a jaar ci yeneen bunt yëpp nag mooy fépp foo xamante ne nit bu ñaqee ndox mën na faa génne. xam nga ne ndox fu mën a jaar rek air mën na fa jaar mhm. fépp foo xam ne bu nit ñaqee mën na faa génnee jinne mën na fa jaar dugg mhm. ndax mën na soppaliku ngelaw jaar fa dugg mhm. kon ci duggukaay yu bari la am pour dugg ci doomu aadama ndax jinne yi dafa am ay façon giir maanaam ay génération wala wala ay ñoo xam ne génération wala ay yu bokkul waaw am na ci façon yu bokkul comme ni ko amee hmm. ñoom ay xeetu génération wala waasoon ay waasoo am na lépp lepp lu am ci nit ñi am na ci ñoom ci ñoom sax la hmm ci ñoom la ëppee ndax am yu gëna soxorante am na yu gëna soxorante bu baax sax ndax am na ci yoy yaq rek mo leen taxaju hmm. xam nga jinne jo xam ne jinne naturellement nonu doom adam la mo day bañ doom adam am ci yow intérêt moy tax muy jéem am ak yow ben relation moo tax muy masla waaw pour jot ci intérêt motax muy am ak doom adam relation waye nak ci faible bu doom adam faible ci kanamam ndax ci ñun gis nga ne nit ki balaa muy bëgg nit ñi diglu ko wala nangam sax da gis mu ne diw boroom jinne yi te jinne du dara ci kanamu doomu aadama waaye da gis ne jinne am na ci yooyu bu ñu gisee doomu adama seen yéene mooy nuñ ko yàqale. Hmm. xam nga jinne jii dugg doomu adama di ko euh, sadd muy daanu defar tax koo jóg du jinne ju baax ni mu amee ci nit ñi ñoo xam ne ni xam nga ne agresseurs yi nga xam ne ni loolu lañ def muy seen métier sàcc wala rey nit duñ ay nit ñu baax. noonu la amee ci jinne yi jinne yi ñoo ëpp sax ay saay-saay ñoo ko ëpp doomu aadama yi am na ci façon yu bëree bëri yoo xam ne ñoom lu bon rek la xam ci doomu aadama yi yéen a jub rafet mosuñ ko ci doomu aadama jinne mën naa puus jigéen ci muy mooy boppam akay ah, jinne day puus jigéen ci muy njaaloo baax a baax te comme ni muy puusee góor it ci muy njaalo hmm. jinne sëriñ mën na wax ne bu toppee jigéen dëgg li tax mu koy poussé ci loolu mooy dafa am lu mu soxla ci jigéen gi jinne bu fekkee dafa soxla ci yow nit sa man yu loolu moo tax mu lay def loolu mel noonu le nga xam ne jinne yi koy def mooy yi nga xam ne dañuy dugg ci biir nit ki nekk ak nit ki soxla man yi doomu aadama pour mën a delluwaat ndaw pour mën a rajeunir hmm. delluwaat ndaw loolu moo tax bu ñu duggee ci biir nit ki mën nañ ko xeetal ci caaxaan ngir ñu am plus de man yu sperme bu bari pour mën di utiliser loolu dañ koy jëfandikoo ak yeneen xam-xam mais nekkul ne sperme sperme bi rek moo leen di delloo ndax bu doon loolu nit ñi seen bopp duñ màggat hmm. konoon kii sëy du màggat mukk waaye ñoom bu ñu ko jëlee dafa am yeneen xeetu xam-xam yu ñu koy jaxaseel yeneen xeetu gàllaaj yu ñu koy jaxaseel di ko jëfandikoo pour mën leen a delloo ndaw hmm. euh, ndax jinne mën naa feeñu nit ngir soppi mbiram ngir soppi mbiram feeñu doomu aadama ngir soppi ay mbiram da koy def lu bare bari ba ci ñii ñaan nii ci ñoom la ëppee sax ndax jinne dana ñëw ci yow ñëwee melokaanu doomu aadama te xool rek naka ngay jëflante ak moom ndax ñëw na ngir jàppale la ci mbir yu bari mu soppeeku waaye muy xool ndax lim la bëgg a defal merito nga ko wala déet cest à bu la ko defalee di nga bew wala di di nga ci jaaree soppeeku ñëwee ci yow melokaan doomu aadama wu doy de en général bu lay feeñoo ci melokaan yooyu nag nit ku tekkiwul dara la lay feeñoo nit koo xam ne ku ko gis mën nga koo xeeb mel ni ku sol ay yéreem yu xotteeku euh, tànk yu tilim am ay góom am euh, kanam boo xam ne amaana sax mu nekk di génne ay yuutam ak ay yëfam mm-hmm. nga xam ne du xeemee mu dara noonu lay dikkee di xool yow naka nga koy accueillir naka nga koy dalale naka ngay jëflante ak moom mm-hmm. amaana mu diis la aajo joo xam ne xalaatoo ko woon defal doomu aadama te laajoo ko alal ju bari mm-hmm. mu diis la ko su fekkee ne nangu nga ko caa jàppale su boobaa bu fa jógee mu door a dellu fa mu jóge woon ndax ku ñuy yabal lay doon moom tamit ndax li muy deflante ak yow du moom doo ko koy deflante ak yow lu dul jinne joo xam ne dafa féeteerlu mooy transgresser seen ay loi seen sarte yi ñëw am relation ak doomu aadama ndax ñoom dañ leen koy aaye xam ne def na lu yoon aaye ci ñoom yoon war naa dal ci kaw mu dawee ci seen monde bi ñëw bëgg a dund ci mën du doomu aadama yi dina ju mel noonu mën naa am ak yow relation te keneen du ca bokk mais jinne joo xam ne dafay jug ngir indil la alalo ak yu mel noonu la dafay am ñu muy seqal loole muy def. Hmm. moo tax bu jugee ci yow day delluwaat ci ñooñu rendre leen compte ne leen dem naa waaye nii ak nii ak nii la ma taxoo kay daal na ma ko gisee su ko defee ñoom tamit danañ defaat yeneen test bu leen neexee bu leen neexee ñu sukkandiku ca lam leen wax. Hmm. waaye day feeñu doomu aadama ba tàyyi ngir soppi ay mbiram soppi ko benn. mu soppi ko positivement wala mu soppi ko négativement. Hmm. anam gu baax wala ci anam gu bon nag. ndax euh, ci suñu environnement. Mhm. mën nañoo ñëwee ci ñun ci suñu dëkkuwaay. Mhm. ci fan lañ ci gën di faral di dëkkee ñu xam ko wala ñu ñàkk koo xam ci suñu biir dëkkuwaay. waaye ñun ak ñoom nag dañoo dëkk abadan. Mhm. mën naa laa wax ne néeg ba ngay fanaan yaa ngi ci dëkkandoo. ba ci sama saal bii ma toog ma ñun ak ko bokk dëkk toogandoo. waaye ñi nga xam ne ci ñoom nag naka jekk du ñu génn ci kër moom seen dëkkuwaay ñaari yëf la mooy duus ak poubelle. ñenn ñi ci duus lañuy dëkke té ñoo ay say say lañuy doon toujours moy lu melni afari di yi mm-hmm. ñi di dëkke ci poubelle yi nga xamné place yu taq ji lañu dëkke amna ci ñi nga xamné nak place yi ñu tam di dëkke moy lu melni photo buñu taf ci biir neek wala ay dessin yo xamné dañ koy dessin ci miru kër gi yu mel nonu lé mm-hmm. ñew dugg ci biir yoyu dëkk nekk ci dañu dëkk doom aadama aslan mom naka jëk dañuy dëkk doomu mm-hmm. euh dañuy faral di dégg ñu naan diw dafa am soxnas jinné ndax loolu lu wér la. bu wér a wér nit day am soxna ci nekk yi. jinne day am relation amoureuse ak doomu aadama bu xasee am nag mooy wàcc na yoon. benn. jinne ji mu wàcc yoon. waaw wàcc na yoon ndax loolu dañ leen koy aaye ñoom. relation amoureuse dañ leen koy aaye. mooy mbirum mbëggeel su mu dox seen diggante doomu aadama dañ leen koy aaye. Mm-hmm. soo ko amee benn nit ki doon koo xam ni mat na sëkk ci digganteem ak boroomam. ñoom jinne yi nga xam ne ñoo yor comme seen justice ñu xam ne nit kii mu seqalkat du nit koo xamante ne nii comme xas amal am leen teel dara jinne mën naa di ci moom lu ko neex wala du du comme neex rek nga mën a am ci moom accès ñoo xam ne kilifa gu kilifa la ñu mujjee koo bàyyi ndax loolu wala su loolu amul ñu xam ne nit koo xamante ne nii ku yor aw làmmiñam la nii rek nit la ko simple rek ñu dem koo trake di ko rëbb ka dàq rëbb gu compliqué la euh, di ko dàqe te buñ ko jàppee danañ ko mbugal mbugal mu tar mais nag su boobaa su fekkee ne nit ku mel noonu la nit kooku na xam ne moom tamit dundam mi ngi ci danger ndax anam nga ñuy jaar ba jàpp jinne jooju moom ci lay ci lay bokk xam nga wax naa la doomu aadama bët yi dafa am lu ñuy wax ay photorécepteur moo tax muy gis hmm. da nga gis ñu naan gumba xoolare hmm. mooy gumba goo xam ne bët yi gëmut mi ngi xoole waaye gisul hmm. loolu moo lakk loolu ñuy wax ay photorécepteur moo lakk ci moom moo tax mënatul gis hmm. léegi nit ki buy gis nag day mel ne comme sa caméra bi ni muy enregistré di ko def ci carte mémoire bi cerveau doomu adama bi mooy doon carte boobu boobule hmm. léegi jinne am na pouvoiru delloo siwaat loolu mu gisoon arriéraat ko buy seet jëmm jooju di xool ba xam jotaay yi mu toogoon ak moom ak kañ la ko mujj woon a gis ak fan la ko mujj woon gis à partir de barab yoyu nak mu dom adam yi mu woon gisante jinne joju fofu dañuy tambalé senu set ñom su boobaa du don ay jinne kese mais dañuy délégué walé ay rap ñuy ko ay musi yu ak ay yeneen yu bari di wër wër yu jéggi dayo ngir gisante ak jinne joju le buñ ko gisé na bu hmm, man ko mom nak dina lool amna loolu dina ko dina ko xam dina ko xam bu baaxa a hmm. amna ñeneen ci ñom ñuko mëna xam sax ñun ndax amna ci ñom ño xamné dañu dawé ci seen barab yi moy jamono yi nga xamné ñi ngi saytu ci xam-xam ñoom naka la jinne di mën a def ba mën a dugg ci biiram aadama mën a dund ak moom te du am problème te saytu googu lu baree bari ci seen borom xam-xam yi ci lañ deewee ndax dañuy gis ne bu buñ duggee ci yaramu doomu aadama après nit ki bu feebaree jinne ji day feebar bu nit ki dee jinne ji day dee te ci cosaan ñoom ñoo gën a mën a gudd fan te comme dañoo soxla seen borom xam-xam yooyu bi ñu leen ñu bari ci ñoom bu ñu duggee ci biir biiru nit ki ci jamono yu ko yaayam ëmbee. mu commencé di formé wu doon nit ñëw dugg ci biiram. dañuy gis ne ëmb bi day avorté day yàqu nit ki dee jinne ja jaara ca deewaale am si ñoom ñoo xam ne dañ leen waxoon ne nañ dellu siwaat dañu mujjoon annulé mission yooyu waaye da cee am ñoo xam ne xasoon nañu dugg ba réussir sori woon nañ nanguwuñoo dellu. nga hmm. xam ne nit lay doon ku am ndey ak baay ni nit. Hmm. ba noppi fekk jinn la itam ñaar yëpp lay boole. Hmm. ñooñu it lu jénne soppaliku dañ koy mën a gis dañuy nekk ci biir nit ñi nag yor seen i kër yor lépp nga mën leen a jàppe nitu ordinaire du am benn mandarga bu lay wane daray jineen ci ñoom waaye dañuy yor pouvoir jinne yor pouvoir nit mooy comme ci ñun rek li ñuy wax saytaan yi ngay gis noonu mm, saytaan yi boo gisee ñu naan la dëmm wala nangam nekkul nit ku toog nii tiim nit dagg teg paakaam di lekk wala yooyu mm. mais day doon nit koo xam ne jinne mooy ñëw du dundee deret soxla deret dugg ci moom ngir am accès ci monde bi ñu nekk nii parce que wax naa ne pour ñu mën a dund ci suñu monde bi dañuy transformé wu génn ci li leen yàlla bindee woon matière bi ñu leen bindee woon jéem a yor yeneen matière loolu nag mënuñ ci yàgg ndax day demander énergie bu bari hmm. pour ñu mën a def boobu le moo tax bu ñu ko defee ay minutes lay doon wala benn waxtu gin nga bëri ñaari waxtu hmm. ñu delluwaat ci seen cosaan bu ñu bëggee nag mën a dund ci monde mën fee yàgg mooy waral ñëw dugg ci doomu aadama bu defee nit ki am pouvoiru jinne ak pouvoir boppam hmm. di mën a gis lu nit mënta gis mën a jëf lu nit mënta jëf di xamit lu nit xamul hmm. looloo koy yóbbu ci jinne ji bu soxlaa deret mu yor pouvoiru jinne ji mën a naan deretu doomu aadama ci lu dul mu koy laal même hmm. euh, ci comme ñu si jeexantal émission bi ñu ñëw si suñu laaj mujj nan la doomu aadama mën a def mën leen a a identifier comme que dañuy ñëw si suñu dëkkuwaay pour bañ a subir ñoom seen vengeance parce que yenn saa yi da nga dégg la diw dafa sotti woon ndox mu tàng béréb wala dafa yoroon oto jaar ci béréb nangam gàllankoor ko nan la doomu aadama ñu man a def ba mën a sécuriser boppam ba gàllankoor yooyu yëpp mën see mucc ci digganteem ak jinne waaw doomu aadama ni mu mën a def pour sécuriser boppam ba man a mujj ci yooyu nit ci njëkk mooy di wut ay kaaraange am na xeetu kaaraange yooyu bu ko nit wutee ba am ko hmm. yooyu fi mu leen jubee ñu daw xajal ko dafa am yoo xam ne bu ko nit yoree daf leen lakk comme tey néeg bi ñu nekk amna yo yoo boko ne ondek ko bindoon rek ay baat yu ndaw la nga bind ko ci koñ yi mbind mu sew fu fa jinne duggee wala rab daf koy lakk hmm. kon nit am na pexe mu def ba fu mu leen jubee ñu xajal ko hmm. am na ñoo xam ne sëriñ mën nga ànd ak ñoom ci àdduna lu ne man nga ko gis ci jinne mais mënoo leen a jinne parce que jinne ñemewu leen du leen jege li waral loolu nag ay protection la yoo xam ne nii benn ñuy def ci ñoo seen bopp ba mu sax wala ay musla yu ñuy jàng yoo xam ne bu ñu ko yàlla day dox seen diggante ak ñoom mën na leen def sax xijaab kiiraay goo xam ne jinne du ko mën a gis même doomu aadama am na pexe yu bari ngir mucc ci loolu waaye li pexe yëpp ci kaaraange lay delluwaat rek mooy yoru ay muslaay yoo xam ne benn muy doon yooyu jàng fooy toll te jàng fooy toll jafe na ndax buñ la jàppee dootoo ko tal waaye takk it bokk na ca takk ko ngir muy nekk ak yow ba faw dana tax léeg-léeg boo leen jibee ñu daw xajal la dootu leen sori gis nga joxe naan booy dugg ci duus ak yu mel noonu allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is boo génnee nga wax alhamdulillahi lazi azaba anil ada wa anfani asa googu lor googu muy wax loru jinne yu nekkoon ci duus yooyu lay doon yooyu boo ko waxee dañuy daw génn foofu parce que bu ñu fa nekkee baat yooyu daf leen di lakk kon xam nga ne protection la déjà noonu la demee ci lépp nag wax na sant leen ci topp gi te gërëm leen ñaanal leen yàlla ñun ak ñoom yàlla defal ñu tawfiq musal ñu aar ñu yéer ñu te suturaal ñu te defal ñu fajog aajo ak mbir mu jóg ñaan yàlla suñuy sit yi di keppaaru xam-xam ak murit info yàlla yëkkati leen ba ñu kawe njortu ba jur ay émission ay télévision ak yeneen yëf yu bare